بعد العزبلة وبعد البسملة باسم الديوان سلك الجواهر في أخبار سرائر وباسمي في كل مكان ولكن في المريدية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bu ñuy tàmbalee noonu dañuy wane ni li ñuy wax almuridiya moo ëmb lépp bu doon garab ak i bànqaasam dafa am ay bànqaas yu mag am yu ndaw bu nekk ak meññan ma cay nekk moo tax ma tàmbalee ci diiwaan ñëw ci bàmb fépp dal ni waaye ci biir almuridiya di ziare kilifa gi moom ñi mu bokkal ay almuridiya ñépp di ko sant di sant itam naatixu kalaamam ci kàddu yu rafet yi nga xamante ni bii jàllale na ko banaa nag lu waay di waxati ci lu jëm ci mii mbir yi tam xanaa dangay gën a rafet rafetal ak a fàttali di sant itam ñi nga xamante ni bii wane nañ ni ku tedd kii ngir ñépp la eh, Cheikh Abdoul Aziz Sy Al Ibnu ñu ngi koy sant ci kàddoom ci turu ki nga xamanteni bi modi cheikh ahmad Tijani al maktoum ak ñi nga xamanteni bi gis nañ ñu feñal ci seen yene seenu ciofel ci ku tedd ñu bëgg fatali rek ni kep kuy soppi ci aduna bi ak fo mëna nek fiñ fi war nga mëna dal war nga mëna fàttali loo xamante ni bi daf lay jural mbégte ci diggante bii nga xam ne mooy diggante ka ca penku ca Makka ak kii ci soowu ci Mbàkke ndax bu ñu nekku tedd kii moo doon alayhi salaatu wasalaam yonent bi Muhammad kon daanaka da ngay mën a wax ni moo doon yonent yëpp ndax Muhammad moo doon yonent yëpp alayhi salaatu wasalaam moo tax yàlla bind yonent yi moo tax yàlla bind li bind lépp kon ku ko doon doonaale nga ñëpp kon ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba xaadima rasul mooy waarisu ñi yàlla yónni ñëpp moo leen doon ñi nga xamante ne bi ñoo dee ay ndaw nag te ku tedd ki fees ci ñoom nga xam ni bi ñu déggee lu mel nii ku nekk sa xol di yëngu ñoo ñooñu laa gën a mbokki taalib yooyu laa gën a baaxe tuuti loo xamante ni bi dañu koy dalale seen xel ak seen xol buñu delore rek ci tarikh ci histoire biñu koy jëlé fi ñu doonoon juroom ñett fukk ak ñent juroom ñett fukk yi ak ñett ñepp ñu bayyi leen ngir ñu signé le bugon bi bëggoon ñu signé ko mom rek moko ko gàntaloon wax ni mom benn autorité budul bu yalla du ko reconnaître waaw waye téwul mu and ak ñom ci ngor fiñ ko ko jaarale yépp fanwéré at ak ñett yépp exil après exil

kon li du wara metti kenn demb ak tay rek ño fi nek demb alayhi salatu wassalam la won ci penku tay mi mom ci sogu ndax ki nga xamanteni bi mo commandité ki nga xamanteni bi mom moom bi ci mom la joggé kooku man xamna ko xamna nationalité xamna ñaata at la am te loolu lay démb rek mooy tey ñawoon démb rek ñooy tey duma ko révéler tey nag waaye bu soobee yàlla jamono ngi ñëw ci kanam dinañ dajale taskati xibaar yépp gën a leeral ni lenn loo xamante ni bii xam-xam moo koy joxe mooy tax nga xam ko wala gëstu gëstu ci nii mbaati naa nag ndax dafa am al am al baatinu mën ngaa xamee nii mën ngaa xamee naa man waxuma ñi nga xamni ñoo seq journal bi de waxuma ñu dama ni ci borom idée ba kamu mu ci mom koku lañu ma xamal xamal ma ñaata at la xam nga lo leer na xamal ma turam xamal ma ban nationalité la lo leer na nañ lool ku tedd mako ko lool dama koy off incha allah ba egg ci conférence de presse ki nga xamanteni bi nak moy xalé bi nga xamni mom lañ doon tuddu ba jaarale ci eh ahmadou sama dom moko ko indi woon fii booba tambalegul way naa ko wax ni ko moom comme bàyyam dafa nekk ci ay jafe-jafe na pause li muy def donte métier am la it na ko pause ba ca kanam waaw ndax xale moom day am lu ko jig ak lu ko dul jig bu loolu jàllee moo bëgg a wax ak mbokki taalibe yi tuuti ku tedd ci arme yi ñu fi bàyyi nga xam ne mooy remplacer gaz lacrymogène mooy remplacer fetal moo ko bind de naabat kitaabati xam ni silaahi wal jawalaani wax ni silaahi moo ko bind dafa am ñun dañoo am arm arme yi ñu am yërmande boo ko tiire woon glace la lay génneel mbaa miel lem mbaa suukar yooyu la am moo tax fi ñu toll nii ku ci nar a jaaxle doo jël benn bayit naan danga koy dénk sa jaaxle ëpp na xajul ci dara isa katab ta isa katab tuxta za arshul baax yi wa sabahat malaikatu baax yi loo xamante ni bi day yëngal aras di yëngal malayka ya fa nekk yëpp loolu xajul ci lenn benn bayit xajul ci dara ku ci am lu la jaaxal mbaa nga am loo soxla wax ko benn bayit boo jekku ni ko nangam mooy sama soxla bul xam ba xam day yebal ak alif wala baa wala noon wala yaa wala xaaka biir xamoo ku muy yebal ci ndawam waaye benn bayit xajul ci dara dafa am loo xamante ni bii murit ku ne xam na ni naar gënu koo ñime dee naar yi ni ñuy def nii ci dee yi allahu akbar nangam defi njaaxum ak yooyu murit kenn gënu koo ñeme dee waaye dafa am luñ ñu jàngal am nuñ ñu mooñee ñun ki nga xamante ni bii mooy sunu lépp wasalaamu ala mani tabahal huda la daan signé waaw kon ñun sunu lépp jàmm lay mën a doon doonuñu ñoo xamante ni bii dañuy yoru xeer di sànni mbaa di def yu ñàkk fayda déedéet lii ñu doon def nii man bi ma génnee dem fële jàkkay murit ñewat te bima ñew ma dox jubluuma ci marché yi di xew ndax man ànduma ci marché marché yi ñew na nangam nangam di di man ànduma ci yoy man duma def lolu man limay def ma nga ca fa yalla di waxe ci alquran malaayika yi rang ya ñi rang ak ni ñi sàbbaale seen borom ak ni ñi bëggee yonent bi alayhi salatu wassalam ñun lolu la ci tak ndeer bobu la ñuy lañuy la référence waye du li xew ci aduna bi waaw ba di jël ay fatal wala yu démé non li ñu yar xajul fenn légui rek dama daatan dugg sama trondoo Serigne Modou té joggé chien lama indil sen Ben, euh, màggalu tuba gi ñu mujj def sen commission culturelle ba ñu traduire ko euh, français anglais ak euh, chinois loolu dafay te yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax ni wut xam-xam jar na dem ba siin à l'époque autant <laughs> du prophète bu ko defee Serigne Touba fi ñu toll mu nekk fépp ni ñuy waxee Bamba fi kulli makaan mu nekk fépp jox nu lépp kon ki nga xamante ne bii moo commandité moo commandité mbir yi kooku ku tedd ki dañoo wax ni dafa musa wax sëriñ Mbaye Sarr ni ko Babacar mu ne ko Mbàkke mu ne ko bu neexoon France seen kilifa gu mag gaa a mag a mag a mag mu ñëw fi def nii ngeen di def di buub ak mbànd yi ni ko bu nu neexoon. waaye loolu ñoru ñorunu maanaam doonul dara doonul dara dafa fekk ni fi ñu koy teg rek mooy fi mu tege mooy iblis lu mu daan defloo ak njabootam jëmali ci alayhi salaatu wasalaam ci démb ak barki démb ak tey ak ëllëg sax loolu faw mu tal ci kii Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul ndax moo ko defal lu ko kenn defalul rafaani iqdaamu xayri rusuli rafan bihi wa faqtu kulla mursali du kenn te kenn du mom motax nak nag ñun dañuy fexé ba doon na nett li serigne Modou legi ci bir mok khadim di len wax ni ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba khadim rasul dafa musa wax serigne Modou Diaw paxa niko lépp lu muy def da ca yéene waale moroom yi jullitam yëpp ci àddiyee ju mu joxewoon woon ba tax na ñun fi ñu toll nii lii ñuy def nii li ñu ci gën a ñor mooy ñu nu bokkale ndax Serigne Touba ñëpp ko bokk ñëpp ko bokk ñu ne ko bokk leen ñëpp lañu bëgg ñu dalal seen xel te xale yi nga xamante ne bii ay mars moo xew ci àdduna bi ak ñaxtu ak euh, di wane saw naqar ci sa façon loolu ñun bu ñu ci bokk dañuy ñuy testé waale dañuy testé la communauté mouride ba xam luy doon seen réaction loolu it ngeen bàyyi ko ci xel dañuy testé waale ba xam waaye ci biir test bi nag dinañ ci gisaale ni ñun duñu ay yaafuus waaye xuloowuñu xeexuñu waaye nongeeg loo xamante ni bii xajul fenn itam te xajul ci kenn waaw yaa yaman yu liinu ku la taw din chamaka dakkan li yàq xar ku la janil bas maxa xajul ci dara waaw te bañ ko dugalewee ca sawara wa ba génne koo la ko bindoon wa damiran ku la ahda in tudru bi naa xablal wusuuli leen naa yàllaahu yàllaahu ci ñaareelu exil bi avant muy jóge daaru ma naan la nit ku mokkal si ndiit yi am mag mu ko ni man mu ne ko bismillah ba mu ca eggee mu ne ko doy na benn bëyit xajul ci dara nanu dalal sunu xel nanu dalal sunu xel te fi mu toll bu dee tàmbalee fii ci capital bi waxuma Touba ku ne xam ne Touba bis bu nekk nga ngay jàng xasayit ak ku nekk xasayit ga ngay jàng waaye fi ñu toll Ndakaaru rek région bi koñ boo fi dem waxuma quartier koñ boo fa dem am na ku mokkal benn bayit waaw bayit booba bu ko neexee na koy aare koñ ba lu dara lu yomb la xut yaa hafizu kulla man ta'allaqa biya li wajhika wa kulli atliqa da nga koy gëm nag da koy gëm ndax suñu borom dafa nekk fépp

ak révolution politique bàyyiwuma ko dinaa ko def waaye lii dafa gën di farata bu jàllee ba noppi nag mañaan ñi nga xamante ne bii seen métier dafa màcc ci foo yëpp ñuy musique ak ñuy way ak ñu déglu ma bu baax a baax a baax ñi nga xam ni seen métier dafa màcc ci politique ñu déglu ma bu baax a baax a baax ay révolution lay doon yu may annoncé waaye révolution lay doon yu pacifique yoo xam ne jàmm rek lay àndal waaw fu lu baax nekk dañuy génnee li ko gën ci Serigne Touba ni lii moo gën bu lee baaxee itam fu lu baaxul nekk ñu génne ci Serigne Touba lu baax ni lii moo gën a baax lii loolu kat la ñuy def waaw ba ñu cee egg nag maag DTV parce que maa leen ko diggoon dinañu amal conférence de presse boo xamante ni bii dafay matale waaw ngir jamono moo ko laaj jamono day toll foo xamante ni bii boo wax boo waree wax te waxoo tooñ du ñëpp lañu wax loo nag waaw waaye bu ñu la bu ñu la wax loolu danga koy xam radiallahu anhu ak Cheikh Saliou daf maa mës a wax ni ma bul ma tàggooti ci dara lépp lu sam xel may ba nga fas yéene koo doxal ànd naa ci ak yow ak di la ca ñaanal tawféex xam ngeen ni loolu leer na loolu moo tax bu ñu la désigné pour nga war a wax bu wax jotee da nga koy yëg même bu événement amul da nga yëg ni yow mii war ngaa wax loolu rek nu dal waaye du leneen li tax itam Lamp Fall ma njëkk ko cee taamu turandoom Cheikh Ibra radiyallahu anhu Haaj Muhammadul Fadil moo ko tuddee soror bu mag ba ñu koy wooye Lamp Fall waaw kooku moo daan def moo tàmbali woon bu nit toogee ak moom tàllalub tànk mun la bankal boo ko nuyoo jox ko benn loxo mu ne ko na doon ñaari bu doonee ñaari ba noppi mën la boole ci sujjóot boole si ñu koy jiite ca jàkka ja di ko jiite ca jàkka ja ba mënatu a ko muñ mu ñëw nii tey kenn du ko jiite tey mooy jiite mbaa julli du am am déet loolu la yooyu leer na naññi waaw bu ko defee mooy dara nag mënunoo yëngal waaw ndax gëm nañu ni gëm nañu ni hada lisaani wa hada tafakkuri man xalami jaxala fawxa haskar xajul ci dara moo tax nag ñun ñuy teey ndax dana yor lu xajul ci dara xajul ci kenn wasalaam